ba waxtu dama koy jaay boo gisee client ku bëgg dama koy jaay aussi mën nañ si defante dañu bu fekkee mën nga ma topp topp fële yu baax ma jox la ko ñett fële ok maa ngi lay déglu merci ba waxtu dama koy jaay boo gisee client ku bëgg dama koy jaay aussi mën nañ si defante dañu bu fekkee mën nga ma topp topp fële ñett yu baax ma jox la ko ñett wala ok maa ngi lay déglu merci. loolu dama ko jaay boo gisee client ku bëgg dama ko jaay aussi mën nañ si defanta te ñu bu fekkee mën naa ma topp tool fële ñett yu baax ma jox la ko ñett fële ok maa ngi lay déglu merci.